ñu nekk na sunu sunu sunu tonton ñu koy wax na Youssou Dieng euh, bu Wally Ballago Seck mais tam bu ne Youssou Dieng tubaarkàlla dañ koy xam dëgg-dëgg ci biir euh, ngéwal su waxee bu doon it su waxee tamit euh, ku ci nekk da ciy dégg li nga xamante ni njëriñ la tey lu baax lay génne donc mu nekk référence tonton Youssou Dieng ñu ngi lay bégee ñu ngi lay rebégee bu baax a baax a baax mbaa yaa ngi am jàmm ñu ngi sant yàlla tey moom kenn du la laaj lu war a sa teewaay mais dañ naan loolu nga sant ci bis bi waaw waaw mais contentement ndax nag moom ku xëy ku ah ci bokk ci doomu aadama yooyu doon jéem di xale boo xamante ni tubarkàlla góorgóorlu na ba euh, marqué empreinte am fii ci réew mi di wane lu lu am solo ñu ci ëpp lu négatif lañ koy lañ koy jàppee ah mais boo ñëwee ba ci bisam bi di nga xam ne il la compris ah euh, muy fierté nag ci ñun ndax bi yàlla dogalee mu xàmmee màgg ñun la ko yàlla booleel. suñu rak suñu xarit suñu mbokk xam ko jox ñu cër boobu tubaarkàlla jox ko ñëpp donc bu yàlla dogalee mu jël soxna tubaarkàlla yàlla may ko ci ay tout tànk ah ñuy ay seex bu jigéen ak bu góor. ñu du def lu dul sante ko yàlla ah di sant yàlla bu baax a baax a baax di ko santale yàlla moom Pawlish ndax li def jublu ci dara lu dul sant yàlla am ay doom euh, wutal leen i gàtt tubaarkàlla tudd leen woo ay nitam ñu si ko ay mbokkam ànd ak moom ak i xaritam lii rek la nit am ah donc pawlis dama koy wax mu yokk góorgóorlu ta xam ne euh, lu mu doon doon doon xale terewul nii am na fu ko nit ñi teg ah donc na góorgóorlu bu baax a baax a baax daal boo bëggee dégg dëgg ñun ñëpp kontaan nañu. kontaan ngeen mais parfois boo déggee Pawlish wax yen ñagas ñagas ñu ñi naan euh, Pawlish moom euh, fan yi dafa xaw a mere waaraam daan nga ciy wax. waaw nañ wax ci xew mi nag. waaw nañ wax ci xew bi rek non non non non je pour